bismillahi arrahmani irrahim alhamdulilahi rabilalamin walsalaatu walsalaamu ala sayidi alawalina wal axirin mbokki julli ji assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu seen mbokk seen xarit oustaz Cheikh Omarul Fuutiyu Siis moo leen di nuyu di sant buur bi subhaanahu wa taala tey julli ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam euh, di leen wax ne jotaay boo xamante ne yàgg nanoo jot ay appel pour ñu gën koo yaatal gën koo taxawal muy jotaayu asalafu ma alquran magi demb nan la ñu daan dundee ak alquran al karim ñun ñu mën a xam ndax ñoom nanu doon doxalee ñun ñu ngi doxalee noonu wala déet ndax ñun ñu ngi jéem a góorgóorlu kémte lay kattan jox alquran al karim ak ba nga xamante ne moom la laaj ci suñu biir ñu ñëw ci kër gi nga xamante ne yaakaar na képp ku bëgg yaatal ci wàllu alquran al karim wala képp koo xam ne yaa ngi topp alquran al karim ci youtube bi yaa ngi xam nga kër gi mu nekk la maison du Coran au Sénégal mu nekk kër gi nga xamante ne wax dëgg fi yàlla ku bëgg a xam jàngkati alquran yi ci réew mi ñi nga xam ne moom mooy doomi réew mi ci wàllu alquran al karim ak fi ñu toll ci wàllu alquran jàngin bu set yaakaar naa soo defee la maison du Coran au Sénégal ci YouTube bi di nga jot euh, kër gi wala nga def baytul Quran fii Sénégal bu soobee yàlla fii ci kër gi dimanche bu nekk daañu ànd ak yéen ci jotaay bii di asalafu ma al Quran magi démb nan la daan dundee ak alquran al karim di ci woo sëriñ daara yëpp ñu ànd ak ñun ci jotaay gi nga xamante ni jotaay daara la jotaayu majalis la lal sajaada yi teg kaamilu alquran al karim gi fa yéene càmbar fas yéene xool namazij ak mawaqif yooyu nga xamante ne mag ñi daan nañu dundee noonu ak alquran al karim mu nekk loo xamante ne day nekk aw nafar ci sëriñ daara yëpp waaye mu nekk loo xam ne saytu la nga xam ne lu ci dëng ñoom ñooy suñu sëriñ daa ñu mën a woote ñu mën ko corriger ñu ngi leen ciy woo ñëpp waaye képp ko xamante ne ndonga nga ndonga yépp yaakaar naa suñu toppee mbind mi daañ ci mën a jariñu bu baax te daañ ci mën a yokku seen alluwa bu baax a baax daañ ci mën a defaru bu baax a baax xool qurra yu njëkk ya waaye xool seriñu daara yu njëkk ña xool mag ña nan la ñu ngoye woon ci alquran al karim ak nan la ñu ko doon dundee ba ñoom ñu mën a am la nga xam ne moom mooy an najaahu taam al aamil xaamil xaam insha allahu taala asalafu ma alquran nag muy magi démb nan lañu daan dundee alquranul karim ñu njëkkee woon ko ca yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ay taxawaay yu daw yaram ay taxawaay yoo xam ne njàngat ay taxaw seetlu yoo xam ne képp koo xamante ne jullit nga yaa ngi jéem a roy yonent bi ci alquran al karim di nga xoolaat sa bopp moom garanti bi ko borom bi subhanahu wa taala jox waaye teewul mu jooy ci alquran teewul mu am ci ay taxawaay yoo xamante ne kon yow ci sa bopp di nga rus ni ki noonu saxaaba yi yan taxawaay ñoom nan lañ daan dundee alquran al karim ñu daan ci jooy lu ci nekk daan leen ca fekk ngir yëg bi nga xam ne moom la ñu daan yëg alquran al karim daan ko dund ci seen i jëmm ci seen i ruux ci seen i xol taabiin ya muy génération bi nga xam ne moom moo topp ci saxaaba yi nan la ñu daan dundee alquran taabiu taabiin asalaf rahimahumullah ñoom ñëpp ay taxawaay yoo xamante ne wax dëgg fi yàlla dafay jooyloo ba ci montagne yi kon ku ci nekk dafay jaadu iqra'u taarix id fii ibar dalla qawmun laysu yadruuna alxabar nañu jàng taarix ndax am na ay waarookaay ay nit ñu bari réer nañu la waral ñu réer danoo xamut la nga xamante ne moom moo xewoon xamuñu la xew su nu ko xamoon daa daañu delluwaat ci alquranul karim bu màgg bii waaye yegg ba ci sunu mag ñii taxawaay yi nga xam ne ñoom am nañu ko ak alquranul karim kon dafay nekk ay mbind yoo xam ne mbind yu yaatu la ñëpp xam nañ ne ci whatsapp bi euh, saison 1 bi jeex na parce que andi woon nañ ci ay taxawaay yu bare bari ñu ko njëkkee woon mag ñi nan lañ daan dundee alquran suñ ci paree dinañ ñëw insha allahu taala ci jamaul quranil karim xifdan wa kitaabatan mag ñi nan la ñu dajale woon alquranil karim ci wàllu mokkal ak ci wàllu bind ba ñun ñu mën koo jot ci wàllu njàngin bu wér njàngin bu wóor ci ay xeeti njànginam yi nga xamante ne xam nañ ko tey ji ci àdduna bi te Sénégal gàcce gaalaama yàlla may leen ñu am ci ab kawe bu baax a baax insha allahu taala yooye njàngin yan jeego la ci mag ñi def ba mu nekk ay jàngin yu wér ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci wàllu sanad ba ñun ñu mën jot kon ñoom dañ ci def ay jeego yu rëy dafay jaadu tey ji insha allahu taala ñuy toog di jàngalante yooye jeego ni ki noonu ci wàllu tafsir alquran al karim lu ëpp ay fukk juróom fukki tafsir alquran al karim bi tey koo jot na nga xam ne noonu yi ci sahaaba yi amoon dégg-dégg yi ci mufassirun yi amoon kon ñun dafay jaadu ñun ñu andi ay taxawaay yooyee waaye mboolem seen xeeti matière yoo xamante ne am na lu koy lënkale ak alquran al karim daañ ci andi ay jéego yu baree bari ak ay shaxsiyaat quraniya ci wàllu taarix ay nit ñoo xamante ne wax dëgg fi yàlla liggéeyal nañ alquran ay liggéey fës liggéey yu leer dañ ko andi ci suñu jotaay gii nga xamante ne incha allahu taala moom moo di asalafu ma alquran kon dimanche bu ci nekk rek ñu ngi woo mbokk yëpp di woo jamiyat qur'aan yi yëpp incha allahu taala sëriñ daara yeeg ndonga yeeg ñëpp incha allahu taala képp koo xam ne yaa ngi yëngu ci alquran al karim ñu ngi leen di xamal ne jotaay gi incha allah dimanche bu ci nekk nangeen ko xaar ci kër gi la maison du coran képp koo xam ne bokk nga ci ahlul quran booleel sa bopp ci kër gi nga xaar jotaay gi incha allahu taala soxla nañ sa xel soxla nañ sa xalaat soxla nañ sa xam-xam soxla nañ sa ndimbal ci lépp incha allahu taala ci kër gi ak ñun ci jotaay gi ñu jàppee ko majalis ku ñu xam-xamee ñu doomu daara ci daara yi la ñu aw ci daara yi la ñu yaroo kon lépp loo xamante ne moom la ñu jëlee ca daara ya ci wàllu alquran al karim ak lépp loo xamante ne moom moo cay daje daañu ko lal fii ci sajaada yi incha allahu taala teg téere borom bi subhanahu wa taala fas yéene ko càmbar am tuyaaba ci sunu waxtu am tuyaaba ci sunu xel am tuyaaba ci sunuy bët am tuyaaba ci sunuy lammiñ ba ñu dajee ak borom bi subhanahu wa taala ko yàlla defal ndax ku bëgg rendez-vous ak borom bi sëggal ci alquran di gisoon ngeen ca sama woy wa ma waxoon leen ne haata alkitaabu alladi man taama yaqra'uhu qad baata yuxaatibu arrahmana bilkalimi téere bii mooy bi nga xamante ne ku ko tiim di ko jàng wala di ko déglu wala def ci sa lenn na leer ne moment boobe yaa ngi am rendez-vous ak borom bi subhanahu wa taala te ku am rendez-vous ak borom bi mu nekk tawaasul ruuxi ab jokkoo goo xamante ne sa diggante sa ruuxu dem ci borom bi subhanahu wa taala nuurun ala nuur di leen dig daje waxtu wu nekk dimanche bu nekk insha allahu taala ci jotaay bii di ma alquran mu nekk jotaayu daara ci wàllu alquranul karim insha allahu taala ma kaana min sawabin fa min arrahman wa ma kaana min xata'in fa min nuqsaan sallal ilahu ala nabi wa alihi ma labba mulabbin aw tahallala muhrimu